waaw bon métti na quoi métti na parce que lu tax sox bi mu amee moom place bi mu toogoon parce que ñoom ñëpp décédé nañ ko léegi moom moo ci des parce que boo xoolee ci hôpital bi ñu fay nekk yëpp presque ñoom ñëpp daa nekk décédé nañ léegi kenn ki ñoom ñaar ñoo fi des moom ak keneen bi mais keneen ki dañ ko war a évacuer Dakar léegi ñu ñoo fi des waaw kii bi noonu la mel ko. d'ici ko war donc kooku yaakaar naa ne tey la quoi parce que dañoo def demande pour évacuer ko Dakar mais ambulance bi ñëwagul quoi mais ñun ñoo fi nekk pour l' instant quoi ñoom ñu ñu demee fekk ba léegi ñun ñoo si loolu moom dinaa si sawar tontu quoi parce que man de Sédhiou waaw bi ba mu amee Dakar la ko fekk sama rafet bi tamit ji mu amee man boo ñëwee fii dama fekk suñu maire bi fii quoi maire ministre de la culture de la jeunesse Abdoulaye Diop. pris les informations moom dafa ne dina jël prise en charge malade yi quoi ñu fi nekk. Hmm. léegi ba bu man bi ma ñëwee ma fekk ñoom euh, Moulay Touré ak euh, kii bi le commissaire ñu liggéey boobu noonu quoi léegi mu woo mu mu woo ñu quoi waxtaan ana ana parents kii victime yi ñu fi nekk léegi nag euh, mu boole ñu ak keneen quoi kii muy waajur yi mu nekk fii quoi nu mu tudd sax jaata jaata moom fii leen liggéey sax quoi moom Sédhiou waaw. Hmm. léegi nee nañ nee nañ bàyyi na trois cent mille francs trois cent mille francs boobu noonu bu ñu soxlaa dara bu ñu bindee garab dañuy yóbbu facture yi foofu ci foofu lañ koy tàggee quoi xam nga ñun ñaari patients yi ñoo fi nekkoon léegi dafa mel ni ñun suñu ordonnance foofu lay jóg léegi dem nañ ba moment boo xamante ni tey jii daf ñu woo dañ dafa war a dem ay lundi lay ñëwaat mais nee na ku nekk ku ci nekk dina la jox xaalis desit xaalis bi quoi léegi loolu mooy ce qui veut dire que cent vingt loolu la joxe mu ne loolu bu jeexee moom dina watewaat encore yi mën mën a mën a mën a mën moom vraiment ku la wax ni am na am na yaa am na ci yaakaar donc waxul loolu leer parce que malade boo xam ne yoo xam ne kañ la fiy jógee boo waxee am nga yaakaar loolu mën la tey. cent deux mille daa nekk loolu bu xaalis sax lu fi amoon pour l'instant dem def nañ dépensé ñoom nee nañ premier ID bi bu ñu fi ñëwoon dañu defoon rajo cent mille francs cent cinquante mille francs quoi pour suñu jabar pour suñu voilà voilà mooy kii mooy kii mooy jëkkëram am rak yaay kii la quoi cent cinquante mille voilà cent cinquante mille rajo ak scanner mais boo loolu balaa ñuy ñëw la quoi léegi ñun bu ñu ñëwee lañu boole ak kooku noonu ki ma la wax nii quoi léegi nag yooyu pour ñu yóbbu fakkiir yi ñoom ñoo koy dàgg mais léegi nag restant bi lañu jox ñi quoi pour le moment quoi. man loolu fekkee moo fi mais kii mu tëdd sa wax nañ ni ñu ne hôpital bu ne maladie bu ñëwee dañuy xool bu ci gën a grave cas bu gën a grave la ñuy jël ko wax dëgg yàlla hôpital yi mënul jël ñëpp passage yëpp mënul leen jël foofu nag dama leen comprendre quoi ñu ne cas critique la ñuy jël gën a jël ko ñeneen ñi dañuy clamé wu dañuy naan la moo tax jëliñu leen diw na fii génn na fii loolu rek la ko ñu dama yaakaar ñëpp ñu yóbboon urgence bi ay cas am na ñu si décédé woon naa la ko fi des donc vraiment daal Sénégal man dama yaakaar autorité yi dañoo war a wax ci sëfër yi parce que ni mënoo dawal soo respecté code de la te fii Sénégal gis na Sénégal lañu gis sëfër bu def infraction yoon loo topp dara loolu c'est pas normal. dañuy bàyyi kaw guddi yi bàyyi voilà. ndogal yàlla am na waaye nag yàlla waxul kenn rek seen bopp. Hmm. loolu moom vraiment c'est Sénégal loolu moo ñuy rek lu am rek ñu ne ndogal yàlla. ñu hmm. ñu jox jéem xool kan moo dëppee rek kan moo dëppee rek yàlla kay xam ne moom moo rey nii mais bu mu demee ba mu ne bu leen rey seen bopp. comme xam ne am na day yoo xamante ni du ci moom du ci moom lay jógee kay voilà.